ñu jàppoon ni bu ñu waxee xale yi aussi euh, taalibe yi nan toog si kër yi tandaan yalwaani di lekk il faut ñu am lu ñu taxawal loo xam ni bu ñu toogee si kër yi dinañ leen mën a toggal di leen yóbbul ñu xalaat taxawal benn euh, initiative buñu tuddee waañu daara waañu daara yooyu ay jigéen la ñuy tànn euh, jox leen ndimbal jaare la ko nag si loxoy maire yi ndax maire yi ñoom ñooy présider comité comité communaux yi donc ñun maire yi la ñuy jox euh, li nga xam ne loolu lañ leen di jàppale pour maire yi aussi jox ko ña nga xam ne ñooy togg mais assurer suivi bi mais surtout euh, pérennité bi si loolu ñu tàmbali tey si commune bi ñuy tuddee commune Rufisque noor nga xam ni tànn na dinañ fa taxawal ñetti waañi daara ñetti waañi daara yi mu ngi euh, regroupé fukki daara ak juróom si effectif boo xam ni toll na si ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaari taalibe yoo xam ni dinañ toog seen kër ñu leen fay togg ñuy togg di leen di leen yóbbul lii nag dañ ko lancé rek si commune Rufisque noor mais dinañ ko yaatal si commune yi nga xam ne ñoo nekk si département bi yëpp muy les douze communes euh, commune bu nekk dinañ fa taxawal ay waañu ay waañu daara